Africa TV ñu fas yéene gërëm leen bu baax a baax di leen wax ne dal leen jàmm ñu indi leen lu gën a fees tey si boppi xibaar yi lu nga xamante mooy nekk si biir xibaar yi si njëlbéen boppi xibaar yi nag mooy ku nga xam ne moo nekkoon njiiti réew yi am Égypte ñu xamee ko si président Moomar moom nag am na nag kàddu bu mu yëkkati nag jaarale ko si ku nga xam ne moo nekk laykatam bi maanaam ñu xamee ko si looya bi di ko wax ne nag wax askan ñu fas yéene génne lépp nag lépp lu nga xam ne moo nekk di aju si wàllum coup d'état ndekte yooyu nekk na mbir nga xam ne daal ni ki doxut ba léegi foofu na si boppi xibaar yi foofu na si biir réew mu gën a xamee si Libya ñu ne naka ñoom nag am na ab benn mbootaay bu nga xam ne fas nañ eni pour sos li nga xam ne moo nekk ab ab ndaje bu nga xam ne dañoo war a nekk di jaay wàllum diw wala boog wàllum am essence si anam bu nga xam ne de moom dafa utee nguur gi seen jaayeekaay bi wala boog seen li nga xam ne moo nekk seen i doxalin ba léegi rek si boppi xibaar yi foofu na si biir réewi Irak ñu ne lu war a toll si ñaar fukki nit ak ñett ñàkk neen seen bakken ñu bëri nag am na fa gaañ-gaañ yu métti yu xam ne moo leen fa dal di ñëwal li ko waral nag moo nekk nag dafa am ab bomb mun ko sànni woon seen i kaw ci anam bu nga xam ne ñoom waajal pour màggal lu ngeen a xamee yoomul asura wala boog mu nekk si tamxa ret ba léegi rek ah, si biir réew bi ngeen xamee si Hawaï nekk si biir tundi réew yi Amérique ñu ne boobu réew nag mooy war a nekk fukki réew ak juróom gannaaw bi nga xam ne ñu ngi daganal muy góor a góor di sëy wala jigéen a jigéen di sëy ñu xamee ko si gay wala boog lesbian marriage gannaaw bu loolu passé ba léegi si mujjantali boppi xibaar loolu ngeen war ko amee si biir xibaar yi rek moo nekk ñu ne si wàllum toxam cigarette am na nag beneen gëstu bu nga xam borom xam-xam ne gëstu ko si ba wane nag nit ki nag war nekk di tux cigarette si anam bu nga xam ne sax dafa jëlee benn feebar te nag lii ñu ko gën a xamee si électronique cigarette kon askan bi li moo nekk boppi xibaar yi ngeen fas yéene ko ànd ak man mi di Biram es Diop ñu indi leen lu gën a festee si xibaar yi jël nga jëf ba léegi askan bi rek gannaaw bu loolu weesoo di def dara su may ñëw fas yéene ànd ak yéen si xibaar yi si ni mu gën a leeree. kon ba léegi si njëlbéen xibaar yi mooy ku nga xam ne foofu na si biir réewi Égypte moo nekkoon seen njiité réew ñu xamee ko si Mohamed Ama Morsi ñu ne moom naka jamono ji nekk am na kàddu bu mu jëkkati woon naka jaarale ko si ku nga xam ne moo nekk gars yi seen ama looye bi jën di wane ne ne kon nag askani réewi Égypte war ñoo fas ne def seen kéemtalaay kattan di war a mun a moytandiku lépp lu nga xam ne mooy war a mun a indi naka si wàllum coup d'état wala bokk am kàddu bu nga xam ne ñaa ngi jëma nekk di wane ne coup d'état anam bu nga xam ne de boobu moo taxoon ba nga ko fa daloon di génne kàddu gi nag mu ko yëkkati woon aka jaarale ko naka si si am looyam bi maanaam laykatam bi laykatam bi wax ko tase kay xibaar bi mu gën a xamee si Akram website bu nekk si biir réew yi loo wane na bu baax a baax ñu ne nag si biir réew bu nga xam ne si bési àllar yi maanaam niki tey am na nag kàddu moo fa yëkkati woon waaye nag li ñu gën a nekk di leeral rek mooy bési julaay weeri julaay ba la passé ñaari fan amoon na nag am yenn yëngu-yëngu yu nga xam ne soldat yi defoon nañ ko ba daal di jàpp ku nga xam ne moo ne ko seen njiiti réew di Mohamed Morsi te nag loo tax na ba nag ñetti fan si weeri julaay boobu noonu dal di passé lali wane nag moom nag boobu bés lañ ko dal di am coup d'état ne moom nag nekkatul njiiti yi Égypte lu ko waraloon nag ñu ne nag amoon ab yëngu-yëngu météo bu nga xam ne moo xewoon si fanweeri fan si weeri juin si at boobu ñu si at bi ñu nekk nii te nag lu ko waraloon nag moo nekk doomi réewu Égypte bi façon nañ idée nag pour dal di dox ñaxtu maanaam am démonstré di wane ñoom nag doxalin bu nga xam ne Mohamed Morsi mu koo nekk di ko doxalee ñoom de doyut leen neexoo leen tey neexoo leen électe nag seen bébét rek du nekkul dara su mooy ñu dal di ko folli bi nga xam ne du nekk di njiiti réewi Égypte si jamono jooju kon nag mu ne nag dëgg la gannaaw bu nga xam lii yëpp nga dal di am naka wàllum coup d'état na nga ko tegee fële ne boobu kàddu nekkul kàddu bu nga xam ne moom ngay rafetlu pour nit di ko fa war a wax foofu si biir réewi Égypte moom naka gannaaw bu nga xam nag nekkoon nañ jiite réewi Égypte si diggante benn at te nag boobu jamono ñu ko nekk di ko tuumal ne wàllum doxalinam si wàllum koom-koom doxalinam si wàllum nekkin bi rafetul lool rafetul si benn yoon te kon nag ñu ngi dal di wax ne moom dafa war a bàyyi an force maanaam par force ba léegi rek ah, si xibaar yi fii nii si biir ay Africa TV ñu ne nag am na am benn mbootaay bu nga xam ne ñu ngi nekk fóonee si biir réew bi ngeen xamee si Libya Libya nag nekk fii nii si biir tundi North Africa ñoom nag wane nañu bu baax a baax nag gannaaw bu nga xam ne ku nekkoon seen i njiiti réew muy Muammar Gaddafi faatu neen bakkanam si jamono bale si gannaaw am na nag yeneen jafe-jafe métti yu nga xam ne mu fa nekk di am. benn si jafe-jafe nag moo nekk ab yenn mbootaay ñi nga xam ne ñoom booloon neen dal di oote seen bopp ne ñoom dañ bugg a nekk di jaay wàllum diw ñu xamee ko si wàllum oil te li yëpp nekk na mbir nga xam ne dinga ko def pour war a mën a nekk di bundu xatal wala indi sa yenn coono si wàllum nguur gi foofu la si biir réew bi ngeen a xamee si Libya loolu tax na nag ba ñoom nag si yëngu bopp wax ne ñoom nag dinañ def seen kéemti lay kattan dal di war a mun a indi lépp lu nga xam ne mooy war a aju si wàllum am essence ak lépp lu nga xam ne mooy war a indi si wàllum diw ñoom dañ koy jaayal seen i bopp te fekk sax duñ si diisoo ak nguur gi benn yoon kàddu gi nag mu ngi dal di am gannaaw bi nga xam ne nguur gi nag yëbaale woon ne nag mun na moo am sax si weer bu nekk nii de dina war a am yenn jafe-jafe yu bëri ñoo ji moo nekk jànkuwanteel te nag lu nga xam ne moo ko nekk di ko waral rek mooy ñàkk koppar bu doy bu ñoo war a mën a dépasser si li nga xam ne moo war a nekk si wàllum diw bi nuñ ko nekk di amee. loolu tax na ba si jamono ji naka fu ne seen i biir réew mu am na yenn jafe-jafe yu métti yu nga xam ne mu fa nekk di am lu ko waral nag mu nekk ay yenn mbootaay yu nga xam ne ay xeet la am na ñu nga xam ne sax seen mbootaay ñu ngi nekk si wàllum am ndaje rek am si wàllum koppar ñu ngay wane ne ñoom nag jamono bii nga xam ne moom la ñoo wax ak yéen ñoom ñu nga def seen kéemtalaay kàttan di wane ne ñoom tam war nañoo am ab benn baat wala sax war nañoo am ab doxalin bu nga xam ne dinañ ko war a mën a doxalee si wàllum essence wala si wàllum diw foofu si biir réew yi Libya loolu tax na ba si jomb di ñoom ñu ngi fàttali bu baax a baax ñu ne gannaaw bi nga xam ne nag de moom Muammar Gaddafi fàttu neen bakkanam si atum 2011 maanaam ñaari at si gannaaw te li yëpp nag nekk na mbir yi nga xam ne jafe-jafe yaa ngi bëri lool te nag ñi yëpp nag ñu teg moo nekk ay yenn mbooloo nit ñi nga xam ne ñu ngi nekk foofu noonu si biir réew Libya te nag ñu am koppar lool am àll lool di yëkkati li nga xam ne moo nekk jafe-jafe di ko teg si seen wàllum jiit loolu tax na bi OPEC ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ jégaloon lépp lu nekk di aju si wàllum jaayam diw wala boog si wàllum essence bi ñoom ñi ne nag amoon na time si jamono dana am lu war a ëpp benn million yi am bërigo essence yu nga xam ne wala boog diw sax yu nga xam ne moom leen baaxoo di am si bis bu nekk maanaam lu nag wàcc na lool te nag yëpp nekk na jafe-jafe yu nga xam ne mu leen nekk di indil loolu tax na ku nga xam ne nag moo nekk seen i prime ministre maanaam seen njiit bi foofu na si biir réew yi am Libya ñu xamee ko si prime ministre Zidane moo ne wane na bu baax a wax mu ne nag képp ku nga xam ne ne mu ngi dugal boppam na si façon mbir wala sax yaa ngi am nag ay yeneen nit yoo war a nekk di booloo di leen wax ne neen fas indi seen ñoo war mun a nekk di fippee wala neen fas indi seen war mun a nekk di boole ay yeneen nit ba nga xam ne ëllëg si biir ne war a mun a indil jafe-jafe nguur gi mu ne na nga xam ne sa loxo ne yaa ngi ko def si xobi suno te nag di nga fa war a mun a am yeneen jafe-jafe yu nga xam ne moom moo lay dal di indil kon nag mu ne nag nit ñi neen def seen kémti lay kàttan dal war a mun a nekk di bàyyi lépp luy indi wàllum jafe-jafe ak lépp luy indi wàllum xiiroo wala boog ŋaayoo foofu noonu si biir réew bi ngeen xamee si Libya kon nag mu ne gannaaw bu nga xamee ñoom nekk nañ wàllum njiit bi ba léegi seen njëlbéen jafe-jafe bu nekk di wante rek mooy ay yenn soldaar wala sax ñu nga xam ne am nañ gànnaay wala sax ñu nga xam ne seen xam-xam màcc na si wàllum gànnaay ñu ngee daldi booloo dina nag ñaar rek la gaa yi seen àdduna mooy benn muy koppar wala boog muy doole ne leen ko nguur gi jox mbaa su ñu ko jox joxtee jàmm ak salaam du war a mun a am foofu ne si biir réew bu nga xam ne moo nekk Libya ñaar fukki nit ak ñett ñi nga xam ne ñëpp ay siyaal leen maanaam ñu ngi nekk ay muslim nekk foo na si bëri réew mi ngeen xamee si Irak ak tamit ñu bëri ñu nga xam ne sax ñu ngi nekk di yëngu si wàllum kaaraange gi ñu xamee ne si security forces ñu ne ñoom nag ñàkk neen seeni bakkan waaye nag am na ñu bëri ñu nga xam ne gaañu ne fa gaañu yu métti li ko waral nag moo nekk dafa am benn bomb bu nga xam ne sànni woon na leen ko te ñu ko sànni woon na xamaguñ ba léegi ni ki ñan la waaye nag wane ne bu baax a baax na lii mu ngi am gannaaw bu nga xam ne ay siyaate foofu ne si biir réewi Irak ñu ngi leen waajal pour màggal ñu gën a xamee si yomul asura ñu gën ko xamee si tamxarit li nag nekk mbir yi nga xam moom indiloon na leen jafe-jafe bëri bi nag ñu bëri ñu nga xam ne ñu ngi nekk ay borom ndombo tànk manaam ay officiels ñàkkoon fa seen i bakkan si tey jii maanaam àllarba bi nii loo taxawale ñi nga xam ne ñoo nekk di yëngu rek si wàllum Irak seen wàllum na te naka ñu fa ñàkk seen bakkan ñàkk nañ seen bakkan si anam bu nga xam ne métti na lool waaye nag gannaaw bi nga xam ne benn gox bi nga xam ne ñoom dañ leen baaxoo di am yi façon jafe-jafe te li yom nag ñu bi nag ko mën a waxee rek mooy gannaaw bi nga xam ne ñoom julliti ñu lu war a mën a nekk di màggal muy ku nga xam ne moo nekk njëtteeli imaami siyaad bu nekk foofu noonu si biir réewi Iran xam ne si biir réewi Irak dinañu ko def pour màggal ku nga xam ne moo nekk ñetteeli euh, siyaat seen imam bu nga xam ne moo nekk imam Hussein ak juróom-ñaar fukki nit ak ñaar ñu nga xam ne ñàkkoon neen seen i bakkan boobu jamono te li yëpp ko doon def pour seen ñoo war a mën a xeexee ñu jot seen i àq jotam li nga xam ne moo nekk seen i yelleef ak si diggante ñoom ñu gën a xamee si am euh, Umayyad seen ñaareelu xalif bi ñu xamee ko si Yasid si boobu jamono si biir réew bu ñu gën a xamee si Irak si gox bu ñu gën a xamee si Karbala ñu ne loolu mu ngi war a toll si ay ati at gannaaw maanaam war na moom toll si junne ak ñeenti at si boobu jamono. ñu ne ba léegi nag euh, si façon mbir nag amul benn mbootaay bu nga xam ne wane ne ne ñoom ñoo yëkkate yi tax benn nit ñi ñàkk seen i bakkan wala sax ba ñuy war fa am gaañu gaañu métti waaye nag ñu ngi def seen kéemtalaay kattan pour gestu waaye nag joxoñ leen baaraam ñu ngeen a xamee si alqaida alqaida mu nekk am mbootaay bu nga xam ne Osama bin Laden foofu la bokkoon si boobu jamono. ba léegi nag ah, si xibaar yi fii nii si biir Eye Africa dot TV ñu ne nag ah, réew yi Hawaii nekk si biir tund réew yi Amérique ñu ne ñoom nag ah, ñoo war a nekk fukki réew ak juróom comme ni ngeen ko déggee si boppi xibaar rek ne ñoom nag ñooy war a daganal muy góor ak góor di sëy ak jigéen ak jigéen di sëy te lii yëpp mu nekk mbir bi nga xam ne moom ñaaw na lool. loolu tax na bi nag ñu ne foofu si biir réew yi Hawaii gannaaw bi nga xam ne ni que tey muy àllarba bii nii rek moom lañ góom ne nag de muy réew yi Hawaii ñoom nag dina war a daganal pour war a mën a xam ne góor ak góor mën a moroom takk moroom bi góoram jigéen tam mun na morom takk moromu jigéenam ñu sëy si anam bu nga xamee comme ni ko nit ñu di defee nii li nag ku koy war a moo nekk gaay seen gofano bi maanaam ku nga xam ne moom moo nekkoon gaay seen moo nekk gaay bi foofu noonu si biir réew mi ngeen di xamee si Hawaii. li nag mu ngi dal bu nga xam ne am na xëccoo métti bu nga xam ne moo xewoon foofu noonu si biir réew yi Hawaii rawatina si ñu nga xam ne ñoo nekk foofu noonu si boobu ama néegi at néegi am doxalekaay luwa ne ñoom nag am na ab sànnikata bu nga xamee ne kon def pour war a mun a wane ndax lii luwaa dina ko nangu ndax luwaa du ko nangu si biir loolu nag lañ gis nag muy fukki nit ak juróom-benn yu nekkoon foofu na si boobu néeg fukki nit ak ñeent d'accord ne ne ñoom nag dina war a nangu si li nga xam ne moo nekk si biir façon am kàddu pour góor su ko neexee mu takk moromu góoram jigéen su ko neexee mu takk moromu jigéenam waaye ñu des ñëpp ñooy nag dalee dalee raw raw bu nga xam ne luwaa dañ leen wane ne ñoom nag léegi loolu dafa war a am foofu si biir réew gën a xawee si xawaay ñu ne luwaay bi nag suñ ko saa suñ ko signé ni que tey du war a mun a dem ba lulut ñaari fan si weeri décembre si at bu nekk ne maanaam weer bu ñu digmal si nee su amee ñaari fan la luwaa boobu noonu di war a mun a dem si anam bu nga xam ne noonu lañ ko doxalee. ñu ne nañ ñu ngi fàtte ko baax a baax gannaaw bu nga xamee si atum 1994 maanaam lu war a toll si fukki at ak dara si gannaaw. amoon na nag yenn nangutoo bu nga xam defoon na ko fa ne lu ñu xam si séy rek mooy góor di takk moromi jigéenam wala sax ñu war a dem di am bànneexu ñu war a defee si bitim réew ñu gën koo xamee si honeymoon wala boog weedin si yëpp mbir mi nga xam ne ñoom noonu lañ xamee woon ni ki wàllum sëy waana ñu ne naka luwaay bi naka góom na nag de ñu ko dal di def si anam bu nga xam ne noonu la ma gën a nekk di demee ndekte ñoom daal ne gis na seen penc mi ne ñoom nag d'accord neen gannaaw bu nga xam ne fukki fan ak juróom yu nga xam ne moom leen amoon si commencement yi ku nga xam ne moo nekk seen gouvernement ñu xamee ko si gouvernement Neil Abbas Kurubi mu nga xam ne moom moo daal di dogal ne moom tam d'accord na pour réewi Hawaï ñu war a doxal góor ak góor di takk moromu góoram jigéen tam di takk moromu jigéenam si anam bi nga xam ne noonu la ko seen luwaa bi daal di daganale si jamono ji bi léegi rek si mujjanteeli xibaar yi ñu ne nag si gannaaw nga xam ne bëri nag am nañ jafe fa nekk jànk wante mu am tam ñu nga xam ne tam ñu ngi wane yoon wala boog seen mbir na beneen gestu bu nga xam ne nag bi def nañ ko di xamal nit ñi nag de su war a nekk di tuxaat di sa bopp yu façon cigarette yu ñoo jëfandikoo si jamono ji waaye am nañ cigarette bu ees bu gën a xamee si i cigarette wala boog électronique cigarette muy cigarette bi nga xam ne dañ ko chargé comme ñoo chargé mobile phone ñu xamee ko si une cigarette ñu ne cigarette bi nag nekk na cigarette bu nga xam ne gëstu bu nag may na ne lu war a toll si ay millions de nit de mun nañ faa jaaree suñ ko tux ba duñ fa ñàkk seeni i si wàllum feebaru cigarette te nag mun na leen a jox leneen li nga xam ne sax ñoom amuñ ko woon si seen wàllum wér-gu-yaram loolu tax na ba lii nag gannaaw moo amee nag am na nag amal ndaje bu mag bu nga xam ne defoon ko si biir réew yi Angleterre di capitale bi di London te bu nga xam ne boole nañ fa ne bu baax a baax ñi nga xam ne seen xam na ñu xamee ne si ay buxaaba ak tam ñi nga xam ne tam seen xam ak seen xarañ màcc na loolu ñu war a toll si ñaar téeméeri nit ak juróom fukk ñu war a toog waxtaan seet ndax li nga xam ne moo nekk cigarette bi de ndax du am benn jafe-jafe bu ñu xamal askan bi ndax tam du indi tam li nga xam ne moo nekk loraange bu askan bi war a mun a am su nekkee ñu nga war a tox yi façon cigarette ñoom la ñu leeral ne naka cigarette bi nag amul dara lu nga xam ne dina ko lor niki niki amul dara lu nga xam ne tam dina ko ko war a indi ndaxte batterie moom moo koy caaj te nag dafay am li nga xam ne moo koy war a tàngal te tàngalekaay boobu nag dafaa indi lu ñu gën a xamee si nicotine maanaam ab benn poudre la wala boog ab benn chemical bu nga xam ne moo nekk si biir cigarette moom tam dina am si façon cigarette loolu tax na ba scientifique si maanaam bu xaaba ñu tam wane leen bu baax bane cigarette bii nag de su demee bi war a am dina war a tax sa ñu bëri ñu nga xam ne amoon neen feebaru cigarette ñu xamee ko si cancer wala boog sax lu nga xam ne yeneen jàngoro yi nga xam ne de moom nit daf koo amee si wàllum cigarette mu di ko war a mun a dimbale bi nga xam ne dafa war a mun a jaare sax ba ñàkk nit ki bakkanam kon askan bi li mo nekkal li ñu amaloon si xibaari réew mi ak xibaari bitim réew di leen gërëm bu baax a baax si bu rafet ak tam seetaan bu rafet bi di leen jox dox daje éligal jàmm ba si waxtu bi jërë ngeen jëf ngeen ànd ak man mii di biram s diob dina solo mbëgg am lu leen leer topp ñu si iafrica tv.